mooy li ñuy tuddee troisième mandat du ñu ko yëkkati ci réew mi mukk te réew mi tàkkut gis nga ñi jiite réew mi nañu xam ne Abdoulaye Wade mi fi jóge gënuñ ko woon a xerañ ci politique ëpp ñu ko woon doole ëpp ñu ko woon ak njàmbaar te yaakaar naa ni lu askanu Sénégal moytu na Abdoulaye Wade amul keneen koo xam ne da fi toogaat tey ñu di la ko nangul loolu mënta nekk te it wolof yi dañuy wax ne euh, naar bu ndaw bi lu mu lu mu wax rek ca gàdd ga la ca gàdd ga la ko dégg parce que am nañ même bu fekkee ne léeg-léeg nga dégg nit ku ne la waaye njiitu réew mi waxagut njiitu réew mi waxagut waaw waxagut waaye ñi sës ci moom te duñu umpanteeg moom bu fekkee ne ñoom ñi ngi génn di wax ne troisième ak constitution may na ko parce que sept ans yi mu njëkk a toog bu ñuy lim quinquennat yi moom du ci bokk parce que 7 ans la kon warna defat yenen 5 ans muy 10 ans plus 7 ans 7 ans yé bokku ci lol ñi koy wax ñu sës ci mom la da ngay jël tay ji ki ñi wooye ministre de la justice muy ismaïl Madior Fall mom avant muy dugg ci état bi mom mo taxaw waxal bopam ni ñaari mandat yu tégaloo kenn mënu ko fee def bi mu ko waxee dañ ko laaj ne ko waaw sept ans yi mu njëkk a def ci la bokk mu ne sept ans yi dañ ko ciy limaale ak cinq ans yi mu war a def bu ko defee ba noppi day dem kenn mënu fee def la kookee tey jii moom lañ def ministre de la justice moom moo taxaw waxal boppam ne loolee ma waxoon démb sama gis-gisu bopp rek la woon waaye constitution bi moom li wax mooy <laughs> sept ans yi moom bokku ci bokku ci cinq ans la war a def après cinq ans yi deux mille deux mille vingt quatre dafa war a defaat yeneen cinq ans mais kon ñoom pare nañ pare nañ pour la pour la mandat kon bu ñu bu fi kenn toog di ñu wax naan président waxagut ministre de la justice moo wax te constitution ni ci constitution la yëngu moom la jàng droit la def imam est-ce que loolu tamit mënuñ ko nangul njiitu réew mi parce que ginnaaw comme ñun xëy na lool loolu la ñuy jooytu léegi yaa ngi koy wax maanaam dund gi cher na te bërki démb lu yàggul rek woote na ndaje bu mag boo xam ne kat mu ngi wax pour ñu wàññi dund gi est-ce que tamit mënuñ ko nangul troisième mandat bi waa xam nga dafa am ñaari biir yu ci nekk benn bi mooy même bu fekkoon constitution daf koo maye moom dafa am lu mu waxoon ak Sénégalais yi <clears throat> plusieurs fois daf ko wax ci biir réew mi plusieurs fois wax ko ci biti réew mooy juróom-ñaari at ngeen ma fal juróom-ñaari at yi bu matee juróomi at laa leen laajaat juróomi at yi bu ma leen ko laajaatee ba noppi damay bàyyi loolu xam nga ñun ñëpp ñoo ko déggandoo. dëgg ci loolu. léegi bi mu ko waxee ba noppi wax na ci làmmiñu boppam ne moom ñetteelu mandat danañ nga séentu ci lu nekk ba mu des moom léegi nag jëmmi kàddu nag lañu war a jël tey ñu càmbar ko jëmmi kàddu gis nga réew mii di Sénégal bu fekkee ne dem nañ ba nangul kilifa yi lu ñu wax démb mën cee génn tey bu boobaa yar bii ñuy yar xale yi ak jàngal bii ñu leen jàngal amatul njariñ bu fekkee ne dem nañ ba suñuy kilifa. lu ñu wax tey boo ëllëgee sañ nañ cee génn amatul njariñ yar bi amatul njariñ parce que ñoom ñoo war a doon royuwaayu ndaw ñi gis nga fii ci réew mi dafa am ay nit ñoo xam ne dañu doon dem ba taxaw dee taxaw weddi sa kàddu taxaw nga jël dee ngir sa kàddu sax fi dama la jox misaal loolu yaakaar waxtaan waxtaanee naa ko ci ba Lat Joor Jóob bi mu demee war a jàmmaarloog tubaab bi ñëw di tàggu si sëriñ Tuubaa mu ne ko woon li ngay xëccook ñoom te nga ko bàyyi ñëw ànd seeg man ma defal la lu gën lañ yor mu ne ko loolu nattable wu ma ne man nga ko waaye nag sama kàddu daf ma raw bu ma defee lii nga wax ah kay li nga wax man nga koo def waaye nag bu boobaa sama kàddu googu nga xam ne damaa wax ba noppi mu tebbi ko ba ci samay sët ak samay sëtaat dañ ko waxtaane te booba dee moo taxaw léegi nag bu fekkee ne ñun amoon nañ ay mag ñoo xam ne bu dee taxawee kàddu gu tebbi ko taxaw da ngay tànn dee li nga wax maanaam bu dee taxawee ak ni dee méttee kàddu gu tebbi ko taxaw yow da ngay tànn dee pour rek bañ sa kàddu pour bañ sa kàddu tebbi ko léegi nag bu ñu demee ñun ba suñu kilifa yi ñu bëgg a gëm ne mën nañoo wax ba noppi di weddiwaat seen bopp ah bu boobaa nag dañ xam ne. réew mi mi ngi ci crise li nga wax ci baax kon léegi moo ko xal boppam. bu doon làmmiñu boppam rek doy na yéemu ca waaye moom moo wax ne référendum bii nga xam ne moom laa def en 2016 li ma ci jublu mooy Abdoulaye Wade daf fi doon laaj troisième mandat bu fukki nit ak benn faatu ci. loolu laa bëggatul mu am ci réew mi moo tax moom modifier constitution bi. léegi kenn mënu fee def lu lu weesu ñaari mandat waaye léegi lan lañ ko nit di wax di waxee ba noppi moom moo ne maa modifié moo ne moom maa ko def maa modifié constitution bi lu weesu deux mandats kenn mënatu ko fee def waaw léegi lan moo tax mu wax loolu ba noppi jii ñuy toogaat di wax naan dana ko doon du ko doon léegi nag wax ko waxu ko xam nga fi nu toll nii en 2011 2009 jàpp 2010. la askanu Sénégal yépp xam ne président Macky Sall dana présenté wu ci élection 2012 yi yaakaar naa boobu ci lañ ko xam 2012 bi mu nekkee président de la république ci li ñëpp xam ne en 2019 dana dana participer waat ci élection yi mm-hmm. léegi nag en 2019 bi mu bokkee ci élection yi ba noppi lan moo tax mu ne léegi mënatumaa wax bii mënatumaa wax noonu léegi ñu dem ba élection présidentielle yi des benn at ñi bëgg bokk ñépp fi mu moom def nañ déclaration ci seen candidature état état kese moo defagul déclaration ci candidature moom niwul na maay dem niwul na kii dem léegi ana lu xew xew waaw lan moo xew ndax it nag bu fekkoon ne tey jii politique say yi bëgg dem élection ñëpp tey ñée ngi def ne mi ko ñii ngi def ay tournée politique ci biir réew mi ñii koy def ci bitti réew waaw léegi bu fekkoon ne moom amul pas-pasu dem dafa am pas-pasu tabb kenn mu demal ko waaw ndax heure bii doonul woon fekk ñu tabb kenn koo xam ne danañu ko wane léegi waa réew mi ne kii lañ tabb moom lañ bëgg mu demal su ko defee moom mu moom mu génn moom mën a def mën a def tournée politique askan wi xam ne kii kat la njiitu réew mi tabb moom mënut a mënut a présenté wu parce que constitution mooy ko ko waaye na kii la tabb moo ko war a wutu kon nag kenn ku ci nekk war nga xam buñ ne amut xalaatu def troisième mandat bu fekkee ne am nga xel dëgg bi léegi nag euh, damay présenté wu ci troisième candidature te du jur fitna ci réew mi loolu it mënta nekk. imaam eh, ci loolu lañ doon ñëw sax. Mhm. ndax damay présenté wu troisième candidature. Mhm. loolu moo indi woon fitna yi. jamono 2012. Hmm. ba moom ñu fal ko. te si jamono yi ñu jëm tamit muy candidature 2024. Hmm. bu ne damay présenté wu kat ah hmm. kon ñun ñëpp day war nañ tiit. si réew mi. ci wàllum violence. waaye imam ndax kon dañoo war a toog rek kon noppi seetaan. est-ce que jotul tamit ñu jël res maanaam rek kenn ku si nekk jël sa responsabilité. moo xam politicien nga nga nekk ci nguur wala nga nekk opposant moo xam kilifa diine nga nga jiite mbooloo moo xam journaliste moo xam loo mën a doon ba yow kat boo jëlee sa responsabilité maanaam wax ngir kat jàmm mën a mën a dellu wala kat lépp loo xam ne nii lu nar a jur aw fitna la kat ñu teg kon al imam lan mooy responsabilité kenn ku nekk te yan solution lañ mën a joxe pour que jàmm jooju kat dellu siwaat ci réew waaw moom day kenn ku ci nekk am nga ci responsabilité <clears throat> bu dee imaam yi la yàlla daf leen dénk ay minbar minbar yooyu ñu di ci jàllale ay message imaam bu ci nekk ak fa nga nekk yëgal sa sens de responsabilité te nga jéem koo assumer li nga war a wax ak askan wi nga wax kook askan wi waaye li nga war a wax ak état nga wax kook état est-ce que xam nga ne Bamba ñu war a wax ñëpp mënuñoo yëkkati seen kàddu wax ba noppi état te leen mënta nekk imaam yi am nañ ci responsabilité te nañu assumer seen responsabilité boroom xam-xam yi nga xam ne am nañu kàddu ci réew mi di wax ñu di leen dégg am nañ ci responsabilité nañu yëkkati seen kàddu assumer seeni responsabilité kilifa diine yi am na loo xam ne mënees na lañ ko nangul parce que toujours dañuy wax ne ñoom ñi ngi wax ci suuf ñi ngi wax ci suuf ñi ngi wax ci suuf léegi nag wax gi ci suuf dafa am benn problème bu ci am bu fekkee ne ñi ngi wax ci suuf kon bay boo ñu xam ne ñi ñuy wax respecté wuñ leen parce que li ñuy wax amul benn effet bu muy def parce que ba nëgëñ ñi ngi jaay askan wi doole tey ji ku fi ku fi amee kan di wax dëgg te li ngay wax arrangé wul état sa benn tànk mi ngi ci bitt sa benn tànk bi ci mi ci kaso bi nga loolu fi tey ji on on vérité yëpp nit dëgg yëpp kuy wax dëgg léegi kenn ku ci nekk fi ne da ngay sóoraale kaso parce que xam nga ne tôt ou na la ci fekk kon bu fekkee ne nee nañ kilifa diine ñi ngi wax kon ñi ñuy waxal ñi ngi wax ci suuf kon ñi ñuy wax respecté wuñ leen parce que ba nag ni ñi ngi jaay doole bi kon nañu assumer seen responsabilité te wax lañu war a wax société civile bi assumer seen responsabilité te wax lañu war a wax journaliste yi assumer seen responsabilité te wax lañu war a wax ci journal